sëriñ euh, Busoobe moom Bangaaj xalifab sëriñ euh, bu Busoobe teew na euh, yabal na fi itam ab délégation bu am solo naka noonu mbooleem waa Busoobe ci doomi sëñ Masamba sëriñ Busoobe yëpp ñoom itam ñëw nañ naka noonu itam waa mbakke kenn ci mbokk Mbàkke yëpp itam ñëpp teew nañ fi wax dëgg yàlla kenn manqué wut niki noonu mboolem kër yi ak délégation yi itam ci mboolem kër sëriñ Touba yu mag yi nga xam ne Serigne defaa dafa defoonub taal te ñoom itam ñu wólëre woon ak Serigne Massamba Kane yi ñoom itam ñëw nañ fi indi fi ay délégation yu am solo solo solo su ko defee nag euh, kuréel bi doon yor liggéey bi muy Fathul Mannaan ñoom itam ñoo ngi sant bu baax a baax Serigne euh, Alxaaji Bousso moom Baye Serigne Bousso Cumbuleen ci nim leen jàppandale le ñu liggéeyal seen maam ca liggéey boobu itam am ñu ca fës lool ñoo xam ne surtout ñu jëmoon ci wàllum yëgle mi sëriñ Massamba Bosoum sëriñ Ibrahima jiite ko waaye li jëmoon ci euh, def itam jàllale ko ci mboolem rajo yi ak tele yi ca sëriñ Abdou Ahad Bousso Maram moom itam jiite euh, jiite woon ko naka noonu itam commission bi nga xam ne moo yoroon wàllu organisation bi ci Serigne Mohamed Mbacké moom Baye Touba jiite woon ko ñoom itam ñoo ngi leen di sant ci tuuru mbooloo mi. naka noonu la ñuy sant presse bi nga xam ne ñoom itam depuis biñ ko euh, jàppee bis bi ñu ngi def ci promotion euh, màggal gi def ci ay liggéey am solo gën caa fës rajo Zik FM Mbacké RFM Mbacké ak jant bi FM TFM niki noonu itam. Euh, kuréel gi ñuy wax feex Production ci liggéey yu am solo yi nga xam ne ñoom itam fa tabarakallahu jotal nañ ko ndoki noonu mbooleem fédération bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem bunti këri Serigne Massamba Kane yëpp ñoom itam seen taxawaay euh, am na solo lool te fës kon nag ginnaaw dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek noo ngi sant mboolem taalibi aju ci kër gi nga xam ne ñoom itam bi ñu jàppee bis bi ba léegi noppaluwuñ ci fépp foo xam ne toll nañ ko euh, ñi ngi doon ñëw di jàpp ci liggéey bi di ko ànd ak euh, waa Fathul Manaan ba ñu agsi fii nag surtout waa fédération bi ci mbooloo bi nga xam ne moo nekkoon ndigalul sëriñ bi ci dajale lënkale mbooleem buntu kër si sëriñ Massamba Kane yëpp seen i liggéey rafet na lool soxna yi itam képp ku ne xam na ne soxna yi am nañ taxawaay bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla jëppi ñu dundal màggal gi ba léegi ci àddiyee lañ ko tàmbalee ba ci taxawaay bi nga xam ne mënut woon a ñàkk ci bis bi ñoom itam lépp taxawee nañ ko ba mat sëkk. kon nag euh, sëñ Massamba Kanni moom maa ngi wax sax di sant waaye ñun ñoo ko war a sant ñun ñu koy liggéeyal ndax soo delloo ci ay mbindam fu fiy ñaane ñaar yi dafay ñaanal njaboot gi ni niki noonu di ñaanal képp koo xam ne dafa aju ci moom. loolu su ngeen dafa gàtt waaye bu ngeen demee ci xasiidaam boobu nga xam ne daf koo defoon ngir ci jéggalu suñ borom subhaanahu wa taala fa mu lime euh, dafa lim njaboot gi waaye boole waale ci mboolem taalibe boo xam ne dafa askanoo ci ñoom kon nag euh, ci gàttal rek euh, waxtu wi tënk nañu sëriñ baa ngi sant mboolem képp koo xam ne ni séqi nga jéego ñëw ànd ak ñun ci bis bu tedd bii ndax kat umpuloo leen mbir ne njabootuk sëñ Masamba Kan ni lii mooy seen bis ndax bis la boo xam ne euh, dafay symboliser euh, sëñ Masamba Kan ndax événement bu rëy ba nga xam ne xewoon na ci te mooy ne te mooy ne euh, ci la ko seexul xadiim wane woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy lu rëy loo xam ne gannaaw yéen a amoon ci dem aji màkka ziyaare waale umra ziyaare waale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag njaboot gi bis moomu képp ku ci jàpp ci lu néew ak ci lu jege wax dëgg yàlla ñoo ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm waa kër sëñ Massamba sëriñ Mbacke euh, kan ñooñu munuñ leen sax dugg ci di leen sant ndax seen yëfa ñoom su jagee seen ñoom la jagal naka noonu su lu ci xewit ñoom la xewal ndax kër yi benn lañ du ñu ñaar ca boo ko seetloo itam la daan am ci baax mooy ñaari kër yi ku fi mag rek yaay doon kilifteefu kër gi te moo taxit ci suba ba léegi gis nañ ko ca la tàmbale ci Baye Fallou Bousso ba ci mbooleem njaboot gi ànd nañ kook ñun di fàttalewaale seen bis bi nga xam ne itam ñu ngi ci dëgmal muy le treize bi ñëw insha allahu taala kon nag in uridu ila al islah mastataat wa ma tawfiqi illa billah salaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Mouhamadou Mokhtar kaddu yi am na solo lool yal na yàlla barkeel kon Serigne Abdoul Ahad Bousso moom Serigne Dame Maram moom mooy wax ci kaddu Serigne Fallou Bousso mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootuk Serigne Massamba Kanni su noppee incha allahu taala ñu daal tëj nag jataay bi te daal di jox Serigne Cheikhouna Mbaj mu ñëw ci euh, xasaayid yi kon sëriñ Abdoul Ahad bisimilah. aouzu billahi min mayli li wa min sududi amma sunna aw furida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mbooleem lim am yéene liggéeyal maamam Cheikhul Khadim mu defe ko nu kawe njortam di nuyu bu baax ak di ziar alaaji sëriñ Fallou Bousso mii nga xam ne moo toog jotaayub sëriñ Massamba Kanni di ko ñaanal mu yàgg fi téwér ba mboolem lim am yéene liggéeyal maamam sëñ Massamba Kanni ci toolu seexul xaddim bi mu defe ko nu kawe njortam te ànd ko mboolem ànd kook mboolem ay rakkam ak i doomam yëpp ak i sëtam ci barkeb seexul xaddim ñu baal ñu rek ñu jàllale ay kàddu yoo xam ne dañ koy tënk ci benn minute wala ñaar gën ngaa bari mu nekk kàdduy cant ak kàdduy ngërëm kàddu yi nag day yóbbaale ñaari kàddu genn gi mooy kàddu gi nga xam ne suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër Sëriñ Masamba Kanni gi kàddu googu loolu lay yóbbaale te man mii ci laa bokk geneen kàddu gi di kàddu sëriñ bi kon lu mën a xew ñi ngi soññaat mbokk yi bu baax ci turu sëriñ bi di leen sant di leen gërëm sëriñ bi nee na am na mbegte bu baax ci taxawaay yi nga xam ne taxaw ngeen ko ci bis bi moo xam ci njaboot la li ñuy tuddee nu sul bi nga xam ne ci njaboot la ci wàllu deret ci kër gi wala muy ak njaboot ci wàllu pas-pas ci kër gi te ñoom ñaar ñépp ñoo yam ci moom muy njaboot gi nga xam ne doom la wala sët ci moom wala njaboot gi nga xam ne ak jaayante la séq ak ñoom wala moom la séq ak kër gi ñooñee ñëpp sëriñ bi nee na sant na leen gërëm na leen ci seen taxawaay sant na njaboot gi bu baax a baax taxawaay yi rafet na te yittewoo nañ bis bi lool dajale seeni àddiya du ñu yendal du ñu fanaanal ngir luy jagal bis bi loola sëriñ bi nee na gis na lépp te xam na lépp mi ngi leen ci sant di leen gërëm te di leen ñaanal li ngeen ci fasa def wala li ngeen ci am ne ay naal ci bis bi suñu borom kàttanal leen ba saa su nekk ngeen koy gën a mën a concrétiser di ko gën a mën a jëmmal ci anam gi ngeen ko bëggee. sëriñ bi nee na sant na bu baax itam taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi mbooloo mu baree baree lañ waaye ci turu fédération bi la koy jëmale muy mboolem taalibe yi aju ci kër Baye Sëñ Maram ak ñi aju ci kër Baye Sëñ bu so ak ñi aju ci kër bàyyi sëñ Abdourahman ak bàyyi sëñ Ibra euh, Baye sëñ Abdoulahi Bousso ak Baye sëñ leen mboolem daal taalibe yi nga xam ne ak Baye sëñ Ibra Fat Diop mboolem taalibe yi aju ci kër gi ak bàyyi Alaaji Fat Ndiaye mboolem taalibe yi aju ci kër gi daal ak fu fi waaye man di duggee ci bunt bu mën a doon ci njabootuk sëñ Masamba Kanni gi sëriñ bi nee na sant na leen gërëm na leen ci taxawaay bi ak addiye yi nga xam ne dajale ngeen ko indi ko xam na ne jamono neexut rawatina ci ñi nga xam ne dañuy wut luñ am jamono naqari na ci ñoom lool waaye jamono ju naqari jooju yëgalu leen ko seen bopp ci addiye yi nga xam ne dajale ngeen ko ba jox ko ko loolu nag sëñ Masamba Kan nii rek a tax ngeen di def mi ngi leen di ñaanal mu nangu ko te laqal leen ko foo xam ne yàq du fa egg mi ngi leen di soññ nag ndax ab taalibe ko sëriñ ñaar yi rek lañ séq boo defee lu baax mu sant la waaye itam ñaax la nag Serigne Touba da koo waxoon mag ñi ca njaareem ba mu leen koy wax booba ma nga dajale seex si nga xam ne ay boroomi mbooloo lañ ndax loolu la waxoon sëñ Malick Ndiaye Lantinoor ne ko wool ma ñi nga xam ne ay boroomi mbooloo lañ te ko mun mbooloo bu mu fi ñëw ñu fekk ma ca buntub sowu ba muy buntub sëñ Paate Amar la bokk na ci lam leen waxoon keroog wax ju baree bari la waaye bokk na ci lam leen waxoon mooy ku leen jox addiya bu leen ko bégal bu leen ko bégee na ngeen ko delloo ci yàlla mi tax mu jox leen ko kon sëriñ bi loola it lay séq ak yéen addiye ji ngeen xam ne indi ngeen ko fi te jëmmi suñu borom rek tax ak sayxul xaddim te buñ nee suñu borom mooy sayxul xaddim tam pas-pas ba ci lay dugg neena jëmm yoo jooju tax ngeen indi ko fi mu ngi leen di delloowaat ci ngeen yeesalaat seeni pas-pas ci moom te xam ne adduna suñu borom wàccee lu ñu fi lu ëpp sayxul xaddim daray njariñi muy waa association ànd euh, defar daarul xaddim ak yeneen daa daaira yoo xam ne Touba lañ jóge ñëw ci bis bi te ay soppe lañ yoo xam ne liggéeyal seexul xadim doo nga leen ñor moo tax ñu ñëw ci ànd ak ñun la bi bis boobu kon sëriñ bi nee na ñooñee itam mi ngi leen di beral ak cant di sant bu baax itam presse bi presse bi mi ngi leen di sant waa Tawfekh Production ci suba ba léegi ñoo nekk nii di jël bis bi ñi nga xam ne itam ñooy waa Zik FM defal nañ ci ay jotaay yu am solo sëriñ bi sant na leen gërëm na leen waa jant bi FM itam sëriñ bi sant na leen gërëm na leen ci suñ turu suñ góor a njaay ndaanaan mii ndax jotaay bu am solo la def boo xam ne Touba ba Ndakaaru fépp ci réew mi lañ ko doon digloo sëriñ bi sant na leen gërëm leen ci taxawaay bi sëriñ bi loolu ñu ngi la koy seereel bu baax ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne euh, presse bi taxaw nañ ko ci bis bi te jàpp ci bu baax a baax mel ne waa TFM itam ci turu sëriñ Jili Ñang waxoon na ma dana ñëw waaye xam naa dafa am gànt jataay bu yaatu lañ ñu may boo xam ne ca TFM lañ ñu ko mayee ñu yaatal ci dunduk sëriñ Massamba Kanni loolu itam ñi ngi la koy seereel te di sàkku bu baax nga ñaanal leen kon ñoom presse boobu yëpp euh, Euh, ñu gën a euh, mën a matal seen yéene. bu ko defee am na réunion boo xam ne mooy réunion fédération bi aju ci kër Sëñ Massamba Kanni gi ñi ngi koy defee kër Baye Baba Ndiaye la 4 la 4 janvier incha allah lay ubbiwaat kon ñeenti fan ci weeru janvier fële ca HLM kër Baye Baba Ndiaye foofa la ñuy defee réunion boobu kon daal. kon daal loolu la sëriñ bi waxoon ne nañ leen ko jottali ci ay kàddu ngeen gën a góorgóorluwaat bu baax bari na loo xam ne duñ ci delluwaat ci sëñ Massamba Kanni ndax ñi ñu jiitu wax nañ ko ba noppi muy yàlla xéewale nañu sëñ Massamba Kanni mii te nag sëñ Mbàkke bu su ma waxoon ni keroog ba sëñ Massamba Kanni wàccee ab liggéey bañ denc ko ne Massamba Kanni mii de bala maa xam ku ko ëpp wàccuwaay fa suñ borom yowmal xiyaam dafa taxaw waxaatit ne Masamba Kanni mii tëdd fii itam xaw ma woon ku ko ëpp wàcc waay ci Serigne Touba loolu lépp day firndeel cër bi nga xam ne sëñ Masamba Kanni am na ko ci Sayxul sëriñ Serigne Touba tam njëkk géej gi mën naa wooye ku nepp xarit waaye gannaaw géej gi sëñ Masamba Kanni lañ xam ci kum bindu xasiida di ko wooye sama xarit ndax sëñ bi moom ku ne xam na ne yàlla ak yónnente bi ak alxuraan rek ma sa nekk xaritam. waaye sëñ Masamba Kanni mii sëriñ Tuubaa bind na ko ak xasida di ko wax ne ko xillil kanini yu man xadd xiila inna lahu jazban ilallahi hatta qalbuhu bahara sama xarit bi nga xam ne mooy doomi soxna Kanni Mbàkke ji nga xam ne wax nañ ne dañ koo jës bu yéegal ko ca suñu borom kooku ba mujj ab xolam leer nañ wax ne ko nag haza wa yaa xillu kun bil amri mumtasilan wala tazal an nawahillahi munzajira yow sama xarit bi nanga nga taqoo ak ndigali suñu borom yi te bul dañ mukk di jàjju ci mboolem tere suñu borom yi lii sëñ ma Kan ni Seexul Xadim moo ko bind wax ko ko ak yeneen ak yeneen ne ko nag na nga xam ne duma la fàtte mukk ci ñaan yi nga xam ne maa ngi koy ñaan sama diggante ak sama borom danaa la ci dugal saa su nekk duma la ci mas a fàtte kon kooku aw sëriñ sori woon na ci Seexul Xadim lool sëriñ bi bëggoon na ko lool itam bari na ci loo xam ne duma ci dellu waaye ginnaaw ñun sëriñ Touba xaasal nañu ci boppam la sëñ Abdul Xaadir Mbàkke daan wax sëñ Masamba Kan ni sëñ koo xaasal ci boppam xaas jooju ñun ci lañ tàbbi kon am nañ lu ñu doy sëkk lu dee fi wuti feneen rek sëriñ Touba def na ko ci kër sëñ Masamba Kanni gii lu mu mën a doon ci aw yiw kër sëñ Masamba Kanni gii Cheikhul Khadim def na ko fi kon nag la cay jotale nit daal mooy pas-pas bi yóbbu woon sëñ Masamba Kanni ci sëriñ Touba ci ak ndawam ci teel loola rek moo ci jotalewaat ku mën a doon ci ñun ñi ci liggéeyub sëñ Masamba Kanni boobu ba muy dem ci sëriñ bi booba teel na ci moom lool waaye kon nañ xam ne pas-pas ak bëgg dong ko yóbbu ci sëriñ te fu mu mas a àgg looloo ko fa àggale kon nañ góorgóorlu waat baax ci loolu bu ko defee ñi ngi fàttali mbokki taalibe yi fi ne bagage yi nga xam ne moom lañ fi indi woon ñu jàpp ci bu baax bu ko defee itam suñ seexu naa mbaj mi ngi fi ku ko mën a xaar mu xaar ko mu amal njàng mu am solo moom itam sëriñ bi def ñaan euh, ñaanal mbooloo mi ñu gën a am kàttan akuk man akuk wér ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëñ Massamba Kanni jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad yow itam yàlla na la yàlla defal guddal sa fan wéral la ndax itam ku yàgga liggéeyal sëñ ma sàmba kenn kon sëriñ bi nañ tàllal sëriñ bi ñaan nañu tàllal sëriñ bi ñaan amin amin amin amin amin